kilifa diine yi nga xam ne ñoo nekk ci réew mi te nee na lii lépp maanaam Macky Sall moo ko sookee moom Ousmane Sonko daat nay koo xam ne yaa ngi jokk ko song ci biir réewum Sénégal da nga repp ki nga xam ne moo koy song si diwaanu Ziguinchor moom Ousmane Sonko nee na ñi nga xam ne ñooy militant yi démb ba tey ngi leen di calmer ngir nag ñu ànd ko am lenn loo xam ne maanaam xaju fi nee na ay élection maanaam du saagante du waaye nag mbir mi ci terrain bi la yéen kaay gi nee moom Ousmane Sonko daan nay tuumale ñi nga ñooy waa police nee na police complice la ci mbir mi ndax ñi nga xam ne ñooy waa UNACOIS ah, ñoom nag woo nañ police ci kanama waaye nag police di lay am lay amal ah, moom Ousmane Sonko daan nay wax ne Doudou Ka mi nga xam ne maanaam moo sooke mbir mi daal maanaam politicien bu ndaw a ndaw la man Doudou Ka du ma wax ak moom bokkuñu programme bokkuñu lu ñuy xalaat ah. man Macky Sall mooy sama morom ci lu jëm ci wàllum politique waaye nag du ma wax ak koo xam ne maanaam tekkiwul dara ci wàllum politique yéen a kaay gi de la tribune xëy di ñu xibaar naan ñu Ousmane Sonko ma ngay contre attaqué Doudou Ka di menacé yéen a kaay gi ne na en tout am ba des sala mooy defante bi ci diggante Ousmane Sonko ak Doudou mbir maa ngi mel tulleeg màlle ci diiwaanu Ziguinchor yéen kaay gi di réew mi quotidien Doudou Ka moom tim daan nay tontu Ousmane Sonko Sonko ci boppam maanaam moo ko provoqué ndax moo ñëw ba buntu këram maanaam andi fa lu toll si benn ci ay oto ba pare nag maanaam bëgg faa def politique nee na ñi nga xam ne ñuy waa UNACOIS Ousmane Sonko moo sak ñu daal di koy recevoir ngir nag mu daal di ñëw ngir nag daal di may provoqué ba tey ci biir journal bi moom Doudou Ka nee na Ousmane Sonko bu ñu waxantee dëgg maanaam du nitu jàmm Ousmane Sonko n'est pas un homme de de paix loolee kàddu Doudou Kala waaye nag nee na li am ba de sàll mooy Ousmane Sonko deret moo ñu boole sama jeune frère la yéen a kaay gi délibération Sonko nee na Doudou Ka tekkiwul dara ci wàllum politique ba tey moom Doudou Ka nee na daal je préfère être un acteur politique mineur qu'un violent acteur politique majeur ba tey ci biir journal bi nee na en tout cas daal xeex bi wala jàmmaarlo bi ci élection locale yi sa diwaanu Ziguinchor mbir mi nag mënatul ñàkk ma ngi ci yéen a kaay gi di Sud Quotidien Doudou Ka nee na Ousmane Sonko bëgg nga xam ne lii du ay élection présidentielle du yow ak Macky Sall yow la ak doomu sigi coor yi ba tey ci biir journal bi di enquête xëy di ñu xibaar naan ñu violence préélectorale bi jamono ji maanaam dat nay dellu si waat ba tey ci biir journal bi nee na nag est-ce que nag diggante Ousmane Sonko ak Doudou Ka combat la si diwaanu sigi coor loolee ab laaj la yéen a kaay di réew mi quotidien xëy di ñu xibaar naan ñu song yi nga xam ne song nañu ko Ousmane Sonko ñi nga xam ne ñooy classe politique bi daan nañu koy naqarlu li nga xam ne moom la wax daal maanaam yeyu ko yeyu ko benn yoon yéen a kaay gi de la sa nee na Sonko ak Doudou ñoo ngi joué li nga xam ne mooy prolongation yi réew mi ko di jëne ma la ko wax yéen a kaay gi de la tey mooy ñu xëy fekk fa Doudou Ka nee na Ousmane Sonko dinaa ko wan na ko baayam laa ci lu jëm ci wàllum politique yéen a kaay gi di source nee na élection locale yi njiitu réew mi di président Macky Sall jamono ji nag am na ab liste ñi nga xam ne ñoom la Macky Sall war a jiital jamono ji nag tànn na leen ba pare ñi nga xam ne sax ñooy ay leader bokk ci alliés yi maanaam Macky Sall yëgal na leen liste bi yàggatul dara maanaam nag ñëpp danañu ko daal di xam Bara Gaye mi nga xam ne moo bokk PDS te nag ñëw ci Yewwi Askan Wi daan na ana lan moo ko waral yéen kaay gi de la Soleil ak réew mi quotidien xëy dañu xibaar naan ñu coronavirus bi wàcc gi nga xamante ni wàcc na ko lool ci diwaanu Sénégal loole nag moo tax ñi nga xam ne ñooy waa France ubbil nañ Sénégal seeni buntu maanaam daal mën nañ di dem mën nañ di di jàmba jonge nu mu leen neexee cent vingt millions yéene kaay gi di l'observateur ak réew mi quotidien xëy di xibaar naan ñu njombe gi nga xam ne moo mooy pédiatre ba ak infirmière ba ak aide ñoom ñëpp jël nañ leen daal leen di mbogo mbogo yóbbu leen sa kaso ki nga xam ne nag mooy directeur hôpital ba moom ab contrôle judiciaire a kaay gi de la sa xëy di ñu xibaar naan ñu gendarmerie bu Kafountine daal nay teg loxo ñi nga xam ne ñoo bëggoon a yóbbu bitim réew lu toll ci téeméer ak juróom